leen taxaw nuy sant Seyxi Fàllilu jóg leen taxaw nuy sant Seyxi Fàllilu guddeeg bëccëg ñu jublu Seyxi Fàllilu yaaro ci mboolem lawlu yow yaay Mustafa yaay Muntaxal yaay wàlliyu géeju mbindeef yi ay gi neex na Mbàkke Cheikh Fallou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 كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم عزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا ñu ngi leen di nuyu ci turu Cheikh Abul Baraka moom Cheikh Mouhamed al Fadil ak ci kilifteefu ak sëñ Ahmadou Badawi bi nga xam ne moom la ñu dénk liggéey bi te mu jotti mu jël ndigal li tegaat ko ci suñu loxo ak mboolem kilifa yu baax yu tedd yi ñu dandal liggéey bi ànd ko ñoom daje nañ fi nag jàng fi alxuraan ak xasida ci lu tàmbalee ci juróom-ñett waxtu ba juróom-ñeenti waxtu ba sëlmal tisbaar lu jàpp waxtu ñetti waxtu ci bëccëg jàng fi ab limu kaamil yu bari jàng fi limu xasida yu bari am na ay bokk yoo xam ne indi nañ fi ay lim yoo xam ne jàng nañ ko ci daara ya am ñoo xam ne it jàng nañ ko laata ñoo ñëw boo ko boolee daal kaamil yu bare bare loo xam ne jege na téeméer ndax jàng nañ fi ñeent fukk ak benn ak ay lim yu bare bare yu fi ñëw xaside yi nag moom xaside goo tudd rek ci yu bari ci xaside yi jàng nañ fi ay lim yu bari sëriñ Fadlu Jaw mais moo ko doon jàng ak mbooloo mi àndal kon loolu lépp nag nañ ci fas Cheikh Mouhamadul Fadil mi nga xam ne moo xewle te yaatu ginnaaw te yéene ñëpp jàmm nañ ci fas xéewal yu yaatu ba daj kapp àddina bi tàmbalee ko ci taalibe yi Serigne yi mu tàmbalee ci buntu kërub Serigne Fallou bi law ba teq taalibe yëpp waaye génn ci bitti ba teqaale boolem ku dib jullit bu jullit yi géejalee ci xéewal yi ba noppi xéewal googu sax mën naa lawale ba àddina bépp teqaale àddina bépp fu nit nekk tey nooyi rek xéewali àddina ñëpp ko soxla muy ak dal ak jàmm dal jàmm nag ñépp la baax ci ñoom kon yàlla na leer a xéewal gu bàyyi ko ci buntu kër Cheikh Mamadou Fadil tasaaroo ci mboolem taalibe yi génn ba daj kapp jullit ñi waaye yaatu ba àddina bi yëpp ginnaaw ñoo fi dëkkandoo te jàmm rek moo fi baax ñun ñëpp ku ci ne jàmm lay may la nga bëgg jàmm jooje yàlla na wasaaroo ñëpp bokk kon loolu moo jiitu ci liggéey bi ginnaaw bu ñaanalee rek Cheikh Abdoul Baraka mu àggale ab liggéeyam ci kër Sëñ Fallu moo ko rakkam baax yi mu ko yëpp ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mu àggale ab liggéeyam ci kër Serigne Touba ak jëwriñ ñi mu ko seqal yëpp ñaan yi Serigne Bamba yi nga xam ne mbooloo daa topp ci seen ginnaaw seenub liggéey ci seen ëtti maam ya yàlla àggale ko nañ ko bëgge jëwriñ yoonu murid yi yëpp kenn ku ci ne ca la nga nekk da ca yëngu ngir Serigne Touba yàlla defale ci sa bëgg te lépp di dajeeg tawféex kon ñu fas ndax mbir yëpp njëriñ li mi ci pas-pas yi. kon nañ fas yéenee dolliku dolliku zahir ak dolliku baatin te lépp ñu jiital ci teewlu suñu borom subhanahu wa taala ak màggaayam daa di jaar ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam roy ko ci ndigalam yi ak tereem yi waaye def sëriñ Tuubaa muy suñu kilifa suñu diggante ak suñu borom di ras bi ñuy yéegal ci àggale ñu ci ci yonent bi àggale ñu ci suñu borom waaye di koo xam ne itam jote na fuñ jotewut liggéey fa ci diggante yàlla ak yonent bi ba yor xéewal yoo xam ne nag xéewali boppam suñu borom nag ci lisaanul xaal ne ko hada atauna fam noon aw amsik bi xeyri xisaab loola sëñ Tuubaa moom ku ko bëgg ci moom ngay jaar loolee nag moo moo taxoon suñ maam yi ñëw fekk si ko ca loola lañ bëgg ca loola lañ ñu tibbal kon nag la ca mag ñi xam fa ci suñu bëgg mënta àgg ndax ñun mënuñoo bëgg mënuñoo tànn waaye ñoom ñi nga xam ne mën nañu bëgg mën a tànn lañ tànnoon démb te tànn googu duutu jeex yàlla nañu tàbbal ci seen biir tànn googee daal ñuy dugal ci seen biir liggéey boobee waaye nag sedduñu ci seen ndab yu yaatu yooyee ñu amee ci sëñ Tuubaa te li sëñ Tuubaa am dara duutu ci jeex kanam rek lay jëm yàlla na gën a rafet te gën a yàgg ñu ngi sant ñu fi teew ñëpp kon ñu teewlu bismillahi arrahmani arrahim sadaqa allahu mawlana alazim bismillahi arrahmani arrahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi arrahmani arrahim qul a'uudu bi rabbil falaq min sharri maa xalaq wa min sharri gaasiqin idaa waqab wa min sharri naffaasaati fil uqad wa min sharri haasidin idaa hasad bismillaahi rahmaani rahiim bismillaahi rahmaani rahiim qul a'uudu bi rabbin naas malikin naas ilaahin naas min sharril waswaasil xannaas allazii yuwaswisu fii suduurin naas minal jinnati wan naas bismillaahi rahmaani rahiim sadaqallaahu mawlaanal aziim wa ballaga rasuuluhul kariim wa nahnu alaa maa qaala rabbunaa wa xaaliqunaa wa raaziqunaa wa mawlaanaa minash shaahidiin allaahumma rabbanaa taqabbal minnaa xatmal qur'aan wa tajaawaz anna maa kaana fi tilaawatihi min as-sahwi wa n-nisyaan aw taxriifi kalimatin an mawdicihaa an mawdicihaa aw aw taxyiiri xarfin aw taqdiimin aw taaxiirin aw ziyaadatin aw nuqsaan aw taawilin alaa gayri maa anzaltahu aw raybin aw shakkin aw tajiilin inda tilaawatihi aw kasalin aw surcatin aw zayqin lisaan aw wuquufin bi gayri waqf aw idgaamin bi gayri mudgam aw izhaarin bi gayri bayaan aw maddin aw tashdiidin aw hamzatin aw jazmin aw icraabin bi gayri makaan فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الإلحان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا ارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعداء والخلق والإنسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبين وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران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 wa aafina min kulli balaa'i dunya wa azaabil aaxirati bi hurmatil Qur'aan wa adxilna al-jannata ma'a al-Qur'aan warham jamii'a ummati sayyidinaa Muhammadin bi haqqil Qur'aan allahumma ij'al al-Qur'aana lanaa fi dunyaa xariina wa fil qabri muunisa wa fil qiyaamati shafii'an wa alaa siraati nuuran wa ilal jannati rafiiqan wa baynanaa wa bayna an-naari sitran wa hijaaban wa ilal xayraati kullihaa daliilan wa imaaman بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين اللهم اهدنا بهدايه القران وعافنا بعنايه القران ونجنا من النيران بكرامه القران وادخلنا الجنه بشفاعه القران وارفع درجاتنا بفضله القران وكفر عنا سيئاتنا بتلاوه القران يا ذا الفضل والاحسان allahuma arzuqna bi kulli xarfin min alqurani xalawa wa bi kulli kalimatin kiraama wa bi kulli ayatin saada wa bi kulli suratin salaama wa bi kulli juzin jazaa wa bi kulli xizbin xasana wa bi kulli nisfin nicma wa bi kulli rabin rifa wa bi kulli thumunin tanaa allahuma arzuqna bi alifi ulfa wa bil baai baraka wa bi taai tawba wa bi thaai thawaaba wa bil jiimi jamala wa bil xaai xikma wa bil xaai xillaana wa bi daali dunuwa wa bi daali dakaa وبالراء رحمة وبالزاي زلفى وبالسين صنعاء وبالشين شفاء وبالصاد صدقة وبالضاد ضياء وبالطاء طهارة وبالضاء ظفرة وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربا وبالكاف كفاية وباللام الألف لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلا وبالهاد هداية وباللام الألف لقاء وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين allahuma ballig qawaama ma qara'na wa nuura ma talawnaahu ila ruuxi sayidina muhammad alayhi salaatu wa salaam wa ila arwaaxi asxaabihi radiyallahu anhu ajmain wa ila arwaaxi jamii alambiya walmursalin wa ila arwaaxi aabaaina wa ummahaatina wa ixwaanina wa asdiqaaina wa asaatisatina wa masaayixina xaasa wa ila arwaaxi jamii almuminina walmuminaati walmuslimina walmuslimaati al ahyaa minhum wal amwaati ajmaina aama wa ila jamii asxaabi alxayraati min almuminina walmuminaat اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واخذل من خذل المسلمين واخذل من خذل المسلمين امين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين léegi baa ngi doon tege ci loxoy Cheikh Abul Baraka Cheikh Mouhamadul Fata Cheikh Mouhamadou Bachir Cheikh Mouhamadul Mourtada ak seen jëwrin ak Cheikh Ahmadou Badawi ñi koy jaarale ci seeni loxo mu tekk ci loxo yi Cheikh Mouhamadul Fadil mi nga xam ne moom lañ ko doon jëfal mu jàllale ñu ko ci Serigne Touba mu jàllale ko ci yonent bi salaa salaam ba àgg ci suñu borom subhanahu wa taala muy xéewal yoo xam ne day day kapp kaw ak suuf lépp lu ci waay fas ci jotaay bi yàlla defal la ci lu kawe njort bi barakat Seydina Muhammad salaa salaam allahumma salli ala Seydina Muhammad